bëri na bu jaree ñu xeex ñu xeex bu jaree ñu def ko waaye faw réew mi baax mooy politique est-ce que loolu ngeen gis bi man su ma leen di seetaan j'ai pitié de cette opposition parce que voilà des hommes et des femmes qui n'ont pas compris que ce vent de changement est arrivé a été largement approprié par les populations que vous êtes et particulièrement cette jeunesse extraordinaire que vous êtes moo tax ñoom dañoo nekk seen biir ça ne me surprend pas bi élection di di campagne commencé ba léegi génneguñu Dakar ña nga toog di conférence de presse parce que xam naa ni ragal nañu sax génn wala jàkkaarloog askan bi loolu mooy tey ñi taxaw ne opposition bi moo tax man je ne me fais aucun souci aucun ci lay xaw le 17 novembre incha allah moom wax ji kay mooy ñaata lay doon ñaata lay doon waaye man aw ma ci sikki sàkk aw ma ci njàkkare Sonko rek waaye du ko waay. lii ngeen def yéen waa Mbour firndeel na ko tey lii ngeen def tey firndeel na ko ndax nun rek te du tey de yàgg na nun rek ñooy toog di campagne ba heure yi joxoon nit ñi xaalis dakkal leen ay t te boo leen nee xaar leen ba trois heures du matin ñu xaar la. laa walaay. li ko andi nag. walaay. li andi loolu. li nga def si xol yi la. ñun waruñu koo fàtte. parce que suñu digganteeg yéen c' est un contrat moral très fort. contrat boobu lan moo la. mooy di ngeen gis ci ñun. te yaakaar ko te gëm ni moo fi nekk. ci bëgg réew mi ci njub. jiital intérêt réew mi loolu moo tax contrat boobu am suñu diggante moo tax ma koy wax sama bopp di ko wax waa parti bi yëpp rawatina ñiy diriger gis nga askan du la topp ci yaama neex topp ci ngëm-ngëm loolu daal ngëm-ngëm nag ñun dañu war a am responsabilité bu rëy fexe ba du su. lu ko nar a yàq du jóge ci ñun ñii di yi loolu mooy contrat bi moo tax campagne bi am solo parce que dafa di campagne boo xam ne dafa ñëw gannaaw bu ñu présenter suñu référentiel moo tax ma def ko campagne référentiel bi waaye li ñu waroon wax ci pôle bi wax nañ ko dem ci miti mu Thiès bi parce que Mbour caravane lañ ci waajaloon waaye démb si guddi lañ ñu ne waa Mbour nee nañu dañoo nam meeting dañoo bëgg ñu def ko meeting loola tax ñu transféré ko meeting kon dama dellu ci lañu démb Thiès ndax nee ci référentiel 2050 bi Mbour àll 2050 dañu mu doon dañu wooyee une métropole équilibre mooy mu doon tey ci capacité ci volume ci développement loolu yëpp dañoo bëgg mu daje fii ci Mbour ndax Mbour am na potentiel bi am na capacité bi waaye comme loolu defe nañ ko démb fële tey damaa bëgg waxtaan ak yéen ci ñaari poñ ñaari poñ benn bi di napp bi beneen bi di mbëkk bi ndax waa boor bii dafa mel ni xamoon nañu li ma bëgg a wax ñu anticiper si ci napp gi nag mooy benn mbuur dëkku napp la waaye ñaareel bi mooy nit ñi dañoo bëgg a gëmloo nit ñi ni juróom-benn weer yii nun liggéey yàlla xam nañu liggéey juróom-benn weer yi buñ ko liggéey ñoom Sénégal nëbël na ndax ñoom dañoo yàq yàq yàq yàq ba fu yàq yem xam ngeen bi ñu ñëwee xayma nañu pour li ñu góor bi ñu paree wax nañ leen ko. loo tax ngeen war moo tax man majorité bi ñu war a am assemblée dafa doon door a doon majorité boo xam ne ma li ma gëm ci ñoom comme cent pour cent baaxul ci démocratie li ma gëm mooy ñoom bu ñu waree am ay député ay benn benn lay doon ay toq-toq. du am dara. bu boobaa nag la ñuy yor les plein pouvoir pour mun a doxal li ñu bëgganteeg yéen bu boobaa ngeen di xam. ñoom dañu yàqee réew mi fi mu toll xam nga wax naa ko keroog may joxe les chiffres nee naa ñi def lii dinañ leen woo ñu ñëw layoo réew bi parce que am na loo xam ne nag boo ko defee da nga war réew mi da koo war waaye dama leen bëgg a jukki lenn rek ci li ñu def ci napp gi ngeen xam ndax ci juróom benn weer yi liggéey nañu wala liggéey yi ëllëg bu ma demee feneen dinaa ko def ci mbay mi beneen ma def ko ci njàng bi beneen ma def ko ci leneen ak leneen ba ngeen tegal seen bopp seen bët te bu boobaa nag olof dafa ne bu cin bu cin naree neex bu baxee xeeñ wax leen ni ci juróom benn weer yi ma li ma leen di tuuti rek lu ñu def ci napp gi te loolu ay nappkat gi fii mën nañ ko seeni ndax lu bëri fii la amee ci mbuur juróom benn weer yi livré nañu 1875 moteurs hors yoo xam ne dañ ko subventionné benn bu nekk à hauteur de million de francs mu jëm ci nappkat yi ci juróom-benni weer yi semaine passée rek de la pêche madame Fatou Diouf mi ngi woon di def li nga xam ne immersion de 30 000 pro à groupe mooy. yooyu ñuy dugal récif yooyu ñuy dugal ci géej gi pour jën yi mun a reproduire rawatina li ñuy wax bunt ba nga xam ne ñu ñuy wax pêche juvénile yi nga xam ne matagul ñu koy jël di ko yóbbu ñu mun a bàyyi géej gi wala jën yi mun a reproduire ba egg taay yi ko soxlaaye semaine passée rek def nañ fi 30 000 yoo xam ne émergé nañ ko fii diggante 6 mois yi distribué nañu mbokk suñu mbokk mool yi 6 000 gilet de sauvetage yoo xam ne gratuitement lañ ko def kenn génnewu ci fukki dërëm. bi ñu ñëwee fekk nañu drapeau de construction yi doon def pour service départemental des pêches de Mbour. gars yi newoon nañu tomañ xaalis ba dem toog jàpp seen jàmbur. bi ñu ñëwee reprendre nañ travaux yi am naa yaakaar ci diir bu gàtt incha allah dinañ ko livrer ba mu mun jëriñ pêche bi ni ko war jëriñ. ci juróom benn weer yi yëggal nañu la réhabilitation du quai de pêche de Joal ci juróom benn weer yi defar nañu un site moderne de transformation des produits halieutiques bu Tàmbi doon département bi defaroon nañ ko waaye fa lañ ko bàyyi ko ñun ñëw commencé